jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi mbokk internet yu xaas TV ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare tey nag am nañ mbégte ak contentement ñëw fii seet ki nga xamante ni moom mooy Serigne Ablaye Diop xaas waroon fi nekk nag nekk fi ak Jamaïcain nekk fi ak ki nga xamante ni moom mooy Pape yàlla dogal nag tey ñu am ay xat ñu ñëw fi fekk ki nga xamante ni mooy Serigne Ablaye Diop bëgg waxtaan ak moom ci làmb waaye waxtaan ak moom tamit ci li nga xamante ni moom mooy mystique ndax ku ne xam na ni dimanche passé. làmb amoon na doxoon ci diggante Eumeu seen ak ki nga xamante ni moom mooy Sa Thiès Eumeu am ndam mais dafa am seetlu boo xamante ni def nañ ko ci mooy mystique bi bari woon na ci torop torop torop torop ba ñaari mbër yi dem nañ ba 23 heures presque ci la ñu bëre d'habitude ñuy gis làmb di jeex 20 heures parfois. 20 hmm. heures moins keroog nag làmb ji dem ba 23 heures ba loolu moo tax CNG dagg leen sax lu tolloog 3 millions et quelques te yaakaar naa ni comme ni ñu koy waxee ci plateau bi rek loolu ñoom ñoo ko yóbbee seen bopp. sëriñ bi yaa ma waroon a dalal waaye tey maa lay dalal maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyoo ngi lay seetaan. jërëjëf Lamine ñu ngi kontaan macha allah ci jàkkaarloog yow aussi dañuy wax kenn du wax làmb ci Sénégal génn ci Lamine ndax bay nga ci sa waar dañuy wax làmb tey bu doon mbubba dañ naa ah Lamine sol na mbub ma wala sol na tubay jël ndax fi nga jëlee làmb ak fi nga yóbbu làmb tey par exemple Sénégal kenn laajteetul Lamine ah di wax it ñëwati nga sa kër macha allah ndax. noonu nga ah. koy defee fépp yow moom. macha allah daal. macha allah alhamdulilah seetaan nga la am Sa Thiès ak ak ma seen. waaw seetaan naa ko boole ñaar par exemple am ñeewantal ci Salif di encourager it ëmma ndax ëmma champion la. foog seetaane. Eh? Eh, seen affiche. seen affiche. yaa ma envoyé kii bi. waaw maa la envoyé naa la <laughs> lien seen affiche. nga jënd code acca dem mais vraiment xam nga maa ngi koy message man affaire dafa ma bett. Mhm. parce que mosuma xam ne nag wax dëgg yàlla affaire bi nii lay nii lay doon parce que daanaka bàyyiwul dara. comme ku jàkkaarloo sa télé rek di seetaan. Mhm. parce que man ko doon seetaan moo tax affaire bi jaaxal ma sax parce que ni. Mhm. Euh, par exemple boo jëndee chaîne affiche mbër ya bëree nañu. ok yooyu pour yooyu nga mën a seetaan. ok mais bi ma xoolee gis mbër mu dugg si ñu jël kii man ni non macha allah daal lii daal am na solo aussi. kon kon liñ ci wax yow gisoo ko ci. ah non non non man day càng boo jëndee doo am code. non non non man nag sérieusement daluma te aussi dama jàpp ni aussi it euh, parce que dëgg yàlla lien bi mu ko envoyé ma kii bi dañu par wéef laa defee mais vite fait mhm. dama dugg rek macha allah def gros plan toog seetaan. Mhm. gis ci lu yéeme. macha allah loolu am na solo làmb jooju mu ngi doxoon ci diggante Sa ak Eumeu seen dugg si ñaari mbëri sëñ bi Sa bi mu dugg see. Mhm. avant muy egg ci géew bi Eumeu seen dugg si na. man jàngat nga gis ci ci seen dugg si ñoom ñaar muy ñaari mbir saalif dugg seem dafa bëri waaw mbir waaw dama gis ni bi saalif di dugg si Lamine euh, par exemple xoolal li Salif teg ci géew bi ni mu bëri ku ci nekk bokkut ak moroom ma nga xool ëmm bi mu dugg see ëllëg mu indi ci mukaayam ci biir géew bi déedéet dafa dem tege ci lu wér kon loolu caax la mm-hmm. Salif li ca yéeme gis nga mbër da ngay am seet boo xoolee ëmm fu arbitre soufflé wala dara nga gis ëmb day dawaat defaat nii. boo tax jublukaayam di ko wër rek jublu penk. loolu nag wax la. tey bu doon mbër ma mag mu ëmb di bëri da nga gis moom day doxee wet. Mhm. féete ak ëmb mais saa dafa taxaw rek. Mhm. deuxièmement Lamine euh, maa ngi leen di déglu ci seen plateau Moustapha Gueye mu ngi wax wax ba am solo mu ngi naan pourtant lii lépp bu ko naree sotteekoo baa du ko sot mais bàyyiwu ci sa xel. Mhm. parce que Lamine butéel yooyu yëpp nga nar ko sot ba pare ànd ak xel bëgg a taxaw bëri dina xew a compliqué. Mm-hmm. moo tax Salif entourage am jàpp ne daal vraiment di nuyu Lamine Golo na gën a bàyyiwaat xel côté boobu. Mm-hmm. Balla Gaye aussi gën cee bàyyi xel. ñu gën ko maanaam euh, saytu parce que làmb dafa fiir. Mm-hmm. làmb Lamine lu ko gën a fiir amul. dëgg la gis nga. dafay wax ni nit di fiiree soxnaam soxna da ko fiiree jëkkër làmb da koy fiiree nit. parce que da ngay gis làmb lu tuuti looy xeeb rek mën na laa indil. musiba mhm. parce que tey par exemple jëlee fii jëlee fii ñaari mbir yu bokkul. tey ah. safara ak ndox mënoo koo boole la. déedéet déedéet loolay problème wax nga ko nga ni Sa Thiès dafa nekk ci biir géew bi Eumeu seen bi mu ñëwee. Mhm. dafa dem directement ci cumukaay. dëgg la loolu ja da nga jàpp ni tegtal la wala Eumeu Sène moo bàyyi ca moo bàyyi cosaan la. xam nga da ngay wax ni da ngay wax da ngay lay wax ni màggetu jinne lu mu màgget màgget di say ñelaju waaw jombal gone mbër mu mag moytul day dem ba day xami tegtalam waaw da ngay tëdd sax gént si Bombardier dégg naa ko muy wax lu mel noonu moom nee na cumikaay moom mooy choisir fu mu koy justement te boo dégloo tey par exemple ëmma ci contre Modou kii euh, bi mu mujjee sol lu vert li mook euh, euh, tafaatin yaa ngi dégg mu dafa tëdd gént ko rek mu lajj ak ñaw ko mm-hmm. lamb ji vert la kon xam nga ni kooku am na lu koy wax parce que par force lay doon parce que mënoo dëkk ci nii par exemple ni la nit ñi di soppee am na ñoo xam du ñuy nit noonu lañ lay soppee ñii ci biir gént lañ lay wan ñii ñëwee jëmm wax ak yow te doo xam ne jinne la wala doo xam nangam la. Mm-hmm. moo tax mbër mu mag mata mm-hmm. parce que Salif ni mu dugg see rek tak ni mu ñëwee dugg see ci géew bi dèjà par exemple da ngay xool ni xam ne nag dëgg-dëgg Salif bu àndoon ak mag du ko def. Mm-hmm. dañuy ñëw rek teg Lamine. dañoo ñëw rek teg te Lamine nit waroon naa jiitu lii mu géew bi. waroon naa jiitu. leemu géew. moom Sa Thiès. bien sûr nit moo waroon jiitu la laax léemu géew bi. ok loolu da jàpp da nga jàpp ne amul. doo gis de non maanaam ni ñëwee teg ba pare door a léemu géew bi moo jaadu. da nga daan gis mbër bu koy tollee fee rek am na ku ñëw nag ron saako yi. waaw di sulli di sulli waaw. parce que saraxu géew dafa am da koy def ba pare door a teg mu nangul la mais munoo ñëw kër Lamine rek. nga ne da ngay dugg par force day toog seetaan la dina ni kii est kon ana rôle ñi mu àndaloon waxuma sax ay coach ak yooyu ah. noonu. mais ñi mu àndaloon ñu ni ñoom ñooy ay préparateur mystique am. dëgg la seen rôle kon joué wuñ ko. non non non non man na damaa jàpp ni côté boobu xam nga nag tegtal yi dafa wute. mais Lamine ku ne xam na ni loo làmb foo ko déggee dangay ngay dégg ñu naan diw dafa man saraxu digg géew waa léegi lu tax ñuy ñëkkante saraxu digg géew ba kon lan moo nekk ci digg géew léegi da ngay gis tey kii nii sol lu vert yaa ngi koy wax seen plateau. ni léegi seetlu ma la làmb vert ak zone la. waaw parce que dañ naan rawaanu zone vert da koy contrer rawaanu vert zone da koy contrer. lii mooy sabab bi ok. waaw léegi nag lan moo tax tegtal boobu ba bëri bu ñëw def ko kon moo waral yow boo ñëwee ci géew li nga war a ñëkk def mooy foo war a dugal sa loxo dugal ko fa foo war a gas gas ko fa ba pare nga ñëw nag teg sa mystique. Hmm. parce que joo xam ni ku ne nga ko bokkal te ku ci nekk indi na mbir teg mais bu ñëw rek teg koon hmm. sëñ bi lan mooy jalang xaw ma jalang xaw ma nu ngeen waaw jalang. dafa nekk màggatum jinne Lamine bu dem ba boof par exemple ñu tegal la benn statut tey boo demee dëkk bu mel ne Gambie da ngay gis boo ñëwee ci jalang da ngay summi yëre bi ba set ñu jox la ganaar bi nga rendi ko mu tuur ci statut bi bu tuuroo nga jël ganaar bi sànnee gannaaw jël sàngara bi jàpp. wala nga jël sàngara bi tufli. nga ñaan ci li nga bëgg loolu mooy jalang jalang du lu baax. kon liggéeyu seytaan la liggéeyu seytaan mais liggéey seytaane nag la bi dëgërul te ñaar la lay xeeñ dëgërul te billaay dalay lay xeeñ da xeeñ lu bari gis nga tey rawxaan bu yàlla nekk bu sell ak lu sellul bokkul <laughs> ma xool ba mu demee jublu penku fi ne lu bon ko fa fekk. pourtant am na ñu naan euh, gàllaaj bi ñuul bi moo gën a gaaw alxuraan. am na ñu naan la moo gën a gaaw kurus. xam nga Lamine lu ca yéeme. dem ba ko ba dem ba koy gëmloo sax. waa làmb xam nga lu ca yéeme Lamine. wallaahi lan moo waral. jinne dugg nit ñuy nodd mu daanu. waaw ah, day am nga nodd ca nopp ba mu yuuxu. pourtant li ngay wax a koy lakk kon ana a dëgër parce que bu doon lu dëgër la tey par exemple man ni jullit laa jullit nga boo déggee nodd bu ñu laa ashhadu anna Muhammad rasulullah nga wax ca la nga cey wax léegi lan moo waral moom bu ko déggee mu lakk ko parce que mënu koo tenir parce que safara bi mu doon ak gëmu ko moo tax da koy lakk léegi loolu boo ci sukkandikoo nit ñëw léegi kee ñu bindal ko benn faatiya bu sell mu takk ko du ko taxaw du fa taxaw. wallahi du fa taxaw man maa la wax ni te ba pare li ca yéeme mooy dafa lay yàqal lu bare bari gis nga li ci bon ci làmb sax surtout nga laal lu weex teg ci lu ñuul. Hmm. Lamine loolu gën a bon ci àdduna da nga naan yàcc rek dootoo xam foo jëm. laal lu weex teg lu ñuul. Hmm. maanaam maanaam maanaam waaw sa yaram yëpp lay téye parce que da nga boole ñaari mélange yu bokkul. lan mooy lu weex ak lan mooy lu ñuul. mooy jalañ lu ñuul. waaw ba pare nga dem nag ci ci ci ci ci maanaam euh, mbir lu weex mooy lu jëm ci alquran tey par exemple xam nga alquran ñaar la bii da ngay bind te doo ko booleek dara nga gis tey nit di rey di ko bindee direct loolu mooy batuut mooy lu ñuul parce que waroo ko def parce que def bi nga ko def rek ça veut dire mooy par exemple yow dëpp nga aaya parce que tey par exemple ni ko yàlla bindee yow dëpp nga ko dëgg la bii nga juutal dëgg la bii nga jël fii jël fii taf boole wala xaatim te parce que xaatim jinne la moo tax tey bismillahi rahmaani rahim nga mën koo xaatim kon nekkatul ma la ba nga ko xaatimee rek kon leneen tax na koo jug. par rapport nag ak ki ko bindee ni nga ko defee def ci musluwaay maara day taal te Lamine maa la ko wax yow xoola jalang lu muy bari bari doole nit bu jàppoo jalang munu koo jàpp jàpp rek moo tax mag ñi bu ñuy dem bërëb da gis ñu jàpp rek dem toog. te dara mënul ci ñoom dara kon jalang du lu dëgër. am na ñu mu jaral ba mu egg ba ñu egg ci tegtal nit ki mën naa bañ wax sax mbër. muy suunu lu dund. suul luy dund ban njëriñ am si. mooy benn ban xeetu gàllaaj la loolu benn Lamine moytul ma da ngay dégg olof di wax baat bu garaw te nit ñi duñ ci bàyyi xel rëbbukatu jaan jaana koy mujj mala dafa am yoo xam dañoo am bopp te dañuy rax bambiloor gii nit yëkkati na nit yëkkati na bar hmm. bambiloor jëlu bant di ko dóor bar ba taxaw ni ko bu ma laalee bar parce que bar ba tuur la hmm. tey Lamine boo demee ci yenn dëkk yi seen tuur bar la mhm. nga dem ci yenn dëkk yi lii jasit la waa léegi loolu boo ko bëggee rey tam mu rax foo jëm boo ko bëggee suul tamit rax foo jëm ah, waaw ñu bëri bëri nag lii leen yàqal te est-ce que xam dewa nga gis mbër boo xam ne tey par exemple ci digg kéem nga gis mu feebar feebar bu bon lu mel noonu la rek parce que suul mala buy dund lim la mën a yàqal wallahi du la ko defaral mhm. te mënulu cee may dara man maa la wax lii ak lu la ci waay mën a wax c'est faux parce que xam la moo tax dafa am gàllaaj yoo xam ne dañuy waat mais waat yi ci waxtu la xoolal tey ñaari exemple yàlla jox Pokola Baldé Liss Ndiago ku ci nekk am nga jël. lu ko waral waaw lu ko waral pour yow. parce que ku ci nekk sa bosu bopp nga taxawee par force la. Mm-hmm. làmb ji noonu rek la mënoon defaate parce que kii la mu am ca làmb ji am na ko kii la mu waroon am ca làmb ji am na ko keneen mënatul la laalaat suuf ci ñoom ñaar. Mm-hmm. mooy lu ñuul bii day waat bii di waat moo tax mu métti seen bëre métti. diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène. Mm-hmm. ndax yow gis nga ni gàllaaj am na ci. feeñ non. non non non non non non parce que boo xoolee <laughs> ñaari mbër yi euh, da ngay gis ni par exemple ñaar ñu entraîné. Mm-hmm. tegoon làmb ji ci entraînement ñëw nañ taxaw. Salif it euh, xam nga nag dégg nga man da ngay gis nag analyse làmb yi ñii nii la Salif dafa bàyyi maninam ëmb it nga ma déglu ko tey interview mu ni moom Salif li mu waroon a def tey li mu waroon a def bu ko defoon kon làmb ji duñ taxaw ndax moom loolu la programme mu ni daf ni woon du ko arrièreal benn pas. kon nga xam ni ñii yëpp saalifit yeewu nañu ci benn côté mais lii nag Lamine da ciy jàng gis nga Lamine gàllaaj baax na mais bu ci nit di basé wu Lamine nit ki da lay bàyyi nga sotteeku ba si sidit yëpp toog mu dem génn sarax toj li nga sotteeku yëpp lii mooy problème bi sarax mooy yëfi de la. Mm, làmb kon sarax la. bien ban moo ci gën parce que mburu bi ni ñëw ñu yor ay pom ñu yor ay banaan ñu yor ay orange dëgg la dañ koy jaxase rek. xam nga ñi yor ñi yor mburu dafa dajale ñeenti xeetu rawxaan safara ndox ngelaw suuf. moom mburu moom mburu parce que dugub la safara lakk na ko. waaw xool foofu jaar léegi ñeenti xeetu rawxaan yi mu dajale moo tax boo ko génnee sarax sa dafay ñëw intervenir ci côté boobu daf lay mën a daal dimbali. Mhm. léegi da ngay gis nag ki génnee beneen koo xam ne tey par exemple ku xam ne euh, fri yi koo gis mu génne ko peut être dañu la sa rawxaan ngelaw la ndax fruit yi boo diggee bu ñu ne la sa bu ngelaw laat mooy saraxam. ñu ne la mooy loo xam ne bu ngelawee ngelaw koy waddal garab boo xam ne bu ñoree ngelaw bu ñuy dóor mu watt loolu sa saraxu rawaxaan la moo tax mu wàcce ko mhm. waaw yooyu nag fir la léegi man Eumeu seen bu ñu ma digalee saraxu mburu mhm. digal ma ko man saa kees mhm. parce que ñoom ñaar ñëpp saraxee nañ ko ñoom ñaar ñëpp bu ñu saraxee fruit aussi ba su kan mooy ci marché mooy dañuy jeex ku nekk ku ëppale wala lan jeex la rek waaw oh, parce problème bi mooy saraxu mburu moom maa la ko du yëpp du ci làmb rek lu ko gën amul ci kaw suuf mburu léegi nag limba mooy problème bi limba kii lan la ci war a génne ak kii lan la ci war a génne léegi nag toujours lamit hmm. téléphone léegi la mais chargeur universel dafa am batterie yëpp lay chargé hmm. waaw ñun li na boo demee ba xamuloo limba boo yemee fii du la lor waaye bu ëppee lor la bu manqué lor la léegi ci lim bi nan nga koy xamee ci ay wér di nga koy xamee ah, wala ci gént lim bi li mu sarax bi nga xam ne bu ëppee du lor bu manqué du lor kooku juróom-ñaar lay taxawee dégg wax mhm. mooy li mu sarax bi nga xam ne bu ëppee du lor bu manqué du da nga gis kii tàndatu dem di tukkee wala foo mën a doon génneel juróom-ñaari kilos ya macha allah dafay am taxawaay waaye bu ëppee jubluwaay ba lan la bu manqué jubluwaay ba lan la. ban mburu lañ ci gën a taamu mburu kese bi wala bu ñu xar def ci dara. <laughs> waaw déet xam nga tey par exemple bu fekkee nit ki def ni la damay dem uti dara. Mhm. par exemple loo xam ni man nga ni lu mel ni visa tukki am sax yaa ngi koy far mayewaat da nga koy xar diw ci sokola ba mu tooy nga defal juróom-ñaar yëpp nga dem yóbbu ko ci daara doo dem uti dara sa yaakaar tas ci c'est impossible bariwul bokkut ak nag sarax yi nga xam ne nag moom daa jam maanaam dugub dafa jam guro bu xonk dafa jam yooyu nag ay dëpp ak dippeeg xeet yooyu loolu ay layu foo ko gis euh, taxaw ñu jël indee dina ko sàngee looy jeex la wala loolu mooy problème maanaam dafa am sarax yoo xam ne nii la ñu taxawee am sarax yoo xam ne benn tànk la taxawee am sarax yoo xam dafa tëdd am sarax yoo xam nag day tax nit ki nga réer ko du mën a jàpp sa biddéew du la mën a téye du la mën a liggéey du la mën a def dara loolu dafay am ci sarax. ban pourcentage la sëriñ am ci làmb parce que man gisaguma fi benn mbër bu ñu xool mu daanu <laughs> peut-être ku tappale ni gisuma ko. waaw amee ah, kii nag euh, sama mbër mi buusite nag xam nga. buusite <laughs> benn jëmm la moom. xam nga bu bu dama ragal tey mooy Moustapha Gueye dafa dafa takk man. non Tapha Gueye sama xarit. waaw nañ ko ko may ko ko may. non non waaw du ko teg parce que parce que bu li mu entraîné xëy loolu xam nga xam nga takk. Mhm. am na gis nga Lamine lii dafa mat a bàyyi xel. takk suuf noob. takk ci nekk def ak morom ma. dangay gis tey par exemple nit ki boo ko sofee. xel ma nga sëf da ngay gis moo tax xoolal ku ñu sëf bopp ba metti da ngay gis mbir moo xam ne boo waree bëri bopp bi day metti rek boo lekk fit ba di dóor parce que dañ ko sëf parce que tur bi ñu doon woo day dóor fit bi bu ko sëfee rek bopp bi commencé naa metti parce que xel mi lañ bëgg a jaxas bokkut ak xabtaan daf ci am mbër yoo xam ne tey par exemple léegi léegi léegi boo jëloon perkaal bu weex takkal ci mbaaxu jigéen boo jàkkaarloog moom mun na rey nit te du ko yëg parce que dootul xam lu muy def day xabtalu parce que rawaanam du gis deret am na ci mbër mi am na ci mbëri. yaa illah ci ñi bëri war a bëri le 21 wala lan. wallaahi Balla Gaye kii. non bii passé sax ak beneen am na ah. boo xam ni wallaahi. percal boo ko jëlee woon takkal ko mbaaxu jigéen am ci ñoo xam ne deretu accident lay raw. kese kese kese. deretu acci am ci ñoo xam ne deretu accident boo koy tegtal boo koy def ni rek rawaan bi di xabtal dootu du ko bëgg a gis moom bu dootul nekk dafay am moo tax làmb dafa amuy tegtal dafa mbër yoo xam ne dañuy ñëwee ni ñu ñëwee mais dañ leen a xabtal yàq seen combat. parce que la lay yëngal Lamine butéel la nga gis boo ko yëngaloo day daal di jaxasoo. Mm. te pourtant boo bàyyee mu ni teg waaye yëngal boobu moom da ngay gis it ku ñu indi butéel di ko def nii di ko yëngal xel mi di dem du xamante lu parce que moom it ñu ngi koy xabtal pour mu pour mu pour mu kii dafa yooyu nga gis ñoo xam ne dañ leen di maanaam noot maanaam par exemple wala fas da ngay gis tëb di fas léegi nag sidit yi fas sidit lay takk. Mm. mook jata yem da ngay gis tey mala léegi mun nga koo jat ba mu ni tegg du mën a bougé parce que sidii yi nga téye ci suuf. Hmm. léegi nit yi da ngay gis nit boo xam da koy jat boobu tépp dootul mën a bouger. Hmm. moo tax yooyu nag dafay am ci làmb. waaw ñaata pour cent ngay jox kii. Ah. ban pourcentage ngay jox sëriñ ci làmb. waaw <laughs> am ñu ni am na ñu ni 4 am na ñu ni 5 am na ñu ni 10 am na ñu ni 50. munul munul ñàkk nag ci benn côté Lamine listixaar rek fii lañ ko bàyyi te sëriñ koy def ak kilifa parce que listixaar xam-xam la. doo ne lu tuuti la mais xam-xam la. doo ko hmm. xeebal te dañuy faral di wax ku jaan màtt léegi nga xam ne sëriñ am na njëriñ ndax la koy lugg xam-xam la ku biir ba di metti léegi ñu ni tey par exemple ngelaw sol na ko fa la génne la ko sëriñ ba di génnee xam-xam la foofu mooy problème bi kon na nga koy jox ci santage sëriñ bu xam boppam parce que man nag gëw ma sax dem làmb aussi man Lamine gëw ma loolu. gis nga loo deful ci biir wallaahi mënoo koo def loo deful sa biir kër. waaw mënoo ko def parce géew ba bëriwul loolu. te même sëriñ bi tey par exemple da koy teg ci xam-xam waaye bu taxawee pour bëre rek uniquement boobu tur boobu ñu daal ko jël boo xam daf koy jaaxal. Mm. parce que la ca moom bokkul. Mm. ça veut dire kon damay wax ni 100 pour cent ci sëriñ bu xam boppam man loolu laay wax. 100 mm. pour cent ci sëriñ bu xam boppam mooy la ngay def yépp nga def ko ci sa biir kër xoolal mbër mi combat bi ni ko lii laa gis. Mm-hmm. li mag ñi doon def bu arbitre soufflé jéggeel saako yi. ñëwaat wala daanu jugaat. parce que Paco la première victoire am mooy ba mu ko dóoree mu daanu boobu la ca pare mënatu koo daanu. Liss Ndiago it ba mu ko galgalee mu daanu boobu la ca pare mënu ko daan loolu la mag ji dangay dégg ñu ne la làmb ju ñuul na ñaari jël lay am. dafay am léegi bu ci nekk nag maanaam mooy lu olof di wax tëggum see tëggum nemb si benn la. na na nag semiñ neex benn naqari benn day am ci làmb. yaa ko tudd sànq moom Modou Lo. Hmm. noo ko gisee moom ak ni mu bàyyee takkaay yi. <laughs> yam ci y ci. xobu si dem ak ndoxu zam-zam <laughs> xobu si dem wërsëg la Lamine gis nga boo bàyyee ba naaj tàng nga dem dóor xobu siddéem dem ba naaj ba daanoo xam nga wërsëg day tàng pour ñu may dégg wërsëg dafay tàng wërsëg du sedd léegi da ngay gis bu xob si bi daanoo day am yoo xam ne day dëpp def nii am yoo xam ne nii lay def nga ut ci yi def nii téeméer boo ko xoojee rek sax ko wallaahi doo uti ñàkk. yi dëpp yi. non yi def nii pas yi dëpp. waaw tey fi ne boo jëloon yi ëpp dëpp sangoo moo tax sangu garaw contraire ba lay indi da ngay umu mais boo jëlee yi def nii mooy loxo bi nangu nga jël ci téeméer def ko ci ndox sangoo doo uti dara am ñàkk parce que siddéem sëg la xoola ni muy ni muy juree ak ni muy baree doom hmm. lan moo tax ñu koy boole ndoxu zam-zam bi ah, mais dafa barkeel garab boo gis mu samp ci kaw suuf am na lu ko fa samp la nag Lamine xam nga ne garab tuub rek sax da ngay dox ci àll boobu daf lu garab gi kenn roose bu ko mais lan moo taxawal garab gi ba léegi xoolal lu mel ni kàdd garab gu gën a bono ngi noonu ci garab yi bu garab yi di naat du naat dëgg moo tax noor lay am xob parce que baaxul te xoolal moment bi waddal kàdd day tàng am na lu ñu ci liggéey moom kàdd bari na yaa bari na bari baaxul. Hmm. amatoo ko parce que du lu baax. garabu kàdd kay la bi def naa mag ñi dañ ko daan moytuloo xale sax di tax moytul garabu kàdd digg njolloor lan moo tax garab bu mel ni guy lan moo tax nit mën a jël fasam dem daaj ca tëb garab yépp dem daaj ko ci guy pourtant daaj nga ko ci benn saison rek mooy par exemple da nga koo daaj pour li ci biir guy gi doon nekk gisuloo ko ba ngay daaj mën a wax Lamine lu muy def nii mu gis nga daaj mu yërëm la mu ni garaaw nangu damay jàppale Lamine ci loolu lii rek la amul amul leneen. wax nga ci sa biir wasaan nga ne sëriñ bu xam boppam. Mhm. nan la ñu xamee sëriñ bi man parce que gis nañ ñu bari gars yi var nañ leen. waaw ndax ay wax yoo xamante ne waxoon nañ ko ci combat bi. naxaate bi bari na ci léegi nan ngay def pour xam vrai vrai vrai sëriñ mooy kilo wax nga gis ko. xam nga voilà yan secret moo ci nekk pour ñu xam sëriñ. xam nga man Lamine ñaar laa gëm man sama gëm Euh, dama gëm ni nit dignitéem avant tout mooy paix deuxièmement mbëru làmb bi nga xam ne tey par exemple yàlla euh, jox na ko la moom maanaam par exemple muy li muy def yow it yàlla may la ci li ngay def yéen ñaar par force yàlla boole ne leen mooy xoolal nga ko gis ko tegtalam wax nga ko bind nga ay jox ko sangul parce que nag bët fi lañ ko fekk làmmiñ fi lañ ko fekk li góor gi sàmba jàlloo di wax rek sama xam nga dama am ñaari mètre ci kaw suuf. mooy góor gi Samba Diallo ak Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum. Mm-hmm. ak Seydina Al Hassan Salam man ñetti ñooñu moom dama leen di déglu su ma demee ba bëgg da conseil ma déglu sëñ bay Jaxate noonu laay dundee Lamina léegi dangay dégg góor gi Assane Salam it da daan dégg nit war faatu sax mu ne def leen sarax bii nit wara a naa mu ne ko demal nga génne dugub. ak perkaal waa léegi nit bu faatoo lu ñu koy naqale dugub ah lu ñu koy sàngee perkaal ba léegi boo ko jëlee day fànk loolu sarax lu garaw la lamin nga dégg suñu mbokk tijaani naan sarax dana dana dana dana wàññi sax lëndamaayu bàmmeel kon xam nga ni lak Lamine lu ko gën amul ci kaw lan moo tax bu ñuy wàccee kaamil sax pare joxe sarax parce dafa barkeel Serigne Sall yi dafa daan wax naan Euh, maanaam tuub bu ànd ak tawasul maanaam wàcceeg jaamu yàlla bu ànd ak sarax lan moo war a loolu ma Abdou Aziz nga daan jékki-jékki dégg ko mu naan am na benn nit yàlla bu ma wax nii nañ génne kër gu ne na génne kilo ceeb wala kër gu ne na génne liibaru ceeb mais lan moo tax mm-hmm. parce que balaa bu war a ñëw di tuxu parce que turu yàlla sax pour mu jàll tey boo doon téye turu yàlla di xëcc di xëcc ba rawxaan bi ñëw pour rawaan bi toog nooy def saraxam ngay def tey booy woo rawaan boo xam ne suuf la lamin xam nga yow nitu daara nga dooyee boo doo téye kur boo ko woowee boobu mais xanaa nit boo amee gan bu ñëwee di nga ko toogal ni ah, ñu ne la c'est simple léegi booy woo rawxaan boo xam ne suuf la ngay tibb bu ñëwee fa lay woo rawaan boo xam ne ndox la nga tànk ndox teg bu dee safara nga boyal xal teg bu dee ngelaw nga tijji mooy ñeenti rawxaan yi bu ci nekk boo ko ci woowee nag bu ñëwee ne la bismillah Lamine ñëw naa kon nga xam ni léegi ñëw naa boobu nag lan moo tax ngeen mën a communiquer mu continuer mooy dee ma defal sarax sàngam heure boo ma soxlaa gis parce que sarax boobu mooy dooleem moo tax moytul ma ko xam sarax te du takk Lamine takk diisal sa bopp la ndax la ngay takk sarax mën na la koo def. kon kon yow doo takk. parce que yonent yàlla Muhammad. waaw ah. yonent yàlla Muhammad laa la gis. Mm-hmm. fii ma toog mënoo génne ci man dara. fii nii kër ga. dara. doo takk doo la ma waxoon sama benn xarit Mahfouz ma ne ko ba ma ñëw fii sax wax naa sama jabar génneel ma émission génneel ma sarax sàngam parce que loolu laa gëm parce que man damay génne sarax moom la dama koy génne de billaahi Lamine bëri nañu umu ñoo xam ne ñàkk génn génne sarax leen ko def Lamine bëri nañu seen àdduna yàqu ñàkk génn génne sarax la waaye nag waxuma nag sarax bu ñu la wax rek nga génn est ce xam ne tey benn waaye daf ma ni damaa waroon tukki ñu génn loo ma sondeel mais fu ma demee ñaan visa duñ ma may ma ne ko ba nga génnee sondeel nga um sa bopp xam nga sondeel dëkk ba nga ko joxee fa lay samp fa lay jeex noo fay génnee dem di tukki léegi lu tax tukki bu daadante xoolal lu simple nii de ñu ne la jëndal picc juróom-ñaar wala fukk ak ñett nga ñaan ci bàyyi mu naaw booy dem di visa di dem parce que day naaw génn yow yaa ngi soxla ci kaw di yëg ci suuf mënoo yëg ci kaw il faut gars yi di nga gis ñoo xam ne seen xel lamin daf lay jaaxal parce que da nga naan en fait am na ci loolu même bu dul xam-xam sa xel warul la koo may. Mm-hmm. na ci nit ñi di bàyyi xel. Mm-hmm. deuxièmement rey du ñëpp ñoo ko war est ce que xamoon tey ñoo xam ne rey ba ñu rey moo yàqu seen àdduna parce que du ñëpp a war a rey la. Mm-hmm. c' est impossible gis nga foo reyee yàqu nga. foo rek yàqu nga. parce que bëggul lu tilim. mos naa ko wax nag benn waay ni tabaski wala ngénte ma ne Sénégal dañuy jaawale toujours. luy farata ak lu dul farata. xam nga lee farata la. tey Lamine boolu ceeb bi ñu la tiimal ngay lekk mais boo lekkee ba suur da ngay est que da ngay continuer rek de boo moytu hôpital nga que farata ba mat na suur nga mais boo forcé na da ngay continuer. danañ la jàpp ne yóbbu léegi mënatul nooyi. loo gis ci àdduna dafa am yemuwaay dafa am frontière. lii mm. mooy différence. Euh, Balla Gaye ak Tapha def nañ face à face keroog ku ku jekku instant bi. <laughs> mu ne ku jekku xoolal mu ngi ku jekku. ku jekku ci gàllal ah, Lamine. non xam nga làmb ji. Euh, moo tax yéen pro yéen kii nu mu tuddati yéen ñi tax ci diggante mbër yi. waaw ba dee leen bàyyi xel. ah doy na waar de. Eh, eh, am na mbër yoo xam dañuy xabtalu man nañu xabtalu dóor la sax de. Mm-hmm. Mm-hmm. wallahi na mbër yoo mën nañu la xabtalu man Malick Thiam dama koy yërëm fii sax. waaw mën kii loo xam ne. instant bi moom xel bi dem na moom. parce que wóorul parce tey mais la koy xabtal xamuloo ko xam nga tey Lamine làmb dafa doy waar. te nag jékku jour signature taxul nga jékku làmb. da ngay dégg ñu naan la mbër dafa am mbër yoo xam dañoo am sensu bis da ngay dañoo mën a këpp yalwaan da def li ngay def ba pare. ñu këpp ko ci dernière saison yooyu. parce que moment bi ngay jekku da ngay gis mbër moo xam ne dangay wóor ni lii bu doon ci signature moment bii wallaahi day daan kii da nga koy gis de waaye mais après làmb ji da nga naan noo lii du dëkk ñaata mbër la da Ama Baldé Modou firnde bàyyi woon ci seen siyaati bi ko amaa naan ko 1000 francs sax su ma la teeloon. waaw boobu boobu lu mu doon yëg maa day saay. mais bi mu ñëwee xoolal li amaa baax ak yaram bi ni mu mel xoolal Modou Lo ay fansam découragé nañ ci estade ba mm-hmm. buy bëre bëre buy kii man maa ko seetaan. ànd am na am na mais xoolal bañ duggee ca géew ba te pourtant moment ba fansam yi di yëg loolu foor ba yëpp dem na ci ama mais kañ la affaire yi wàññeeku fin bala sarax bi mooy yëf moo tax ñoom ñaar vraiment làmb bu neex la di di leen ñaanal ñoom ñaar ñëpp yàlla defal leen jàmm bu biis ba. Hmm. bi buy nag damay dem stade moom. incha allah parce que gëj nga fa moom. keroog ba nga indi oto bi daal nga gëj a. stade waaw waaw moo ah. ah, war a dem nag la bi. waaw loolu mais sëñ bi kontaan naa ci yow. bu baax a baax kontaan tamit ci ñi nga xamante ni ñooñu doon bàyyi xel. jërëjëf lan ngay tàggatoo. bon di la gërëm di la di la di la sant. di gërëm Moussa mi ci rési bi ah. ñoom Pape Sène vraiment di la di la ñaanal yàlla it lii nga nekk it sunu borom teg la ci loxo yàlla doolu la ci sutura Lamine yow war nga am ay yëfi yëf ci làmb na la mbëri delloo njukkal ak promoteur yi ah ak buzz buzz moom dama koy yóbbal nga ma njukkal moom <laughs> ah bien sûr mais mais mais gars yi ko war a def defaat ko parce que tey vraiment euh, macha allah daal xam nga Lamine Sénégal dañu bëgg làmb man dama bëgg làmb Lamine man mbër mu ndaw sa xeebu ma ko làmb bu ndaw sax maa ngi jàkkaarloo ma ko seet parce que dama koy dund wallaay yàlla xam Hmm. football moom la yàlla xam doy na xaw ma ci lu bari sax man dañu ko ba lu mu tuuti tuuti nga seetaan maa ngi jàkkaarloo mu di ko seetaan wallaahi laaj ci soxna si parce que loolu laay bëgg damay damay ci yëg sama bopp parce que culture Sénégal la indi hmm. mooy li tafaatin wax tey ni boo génnee ci ngay gën a fonkaat sport ndax hmm. da ngay boo leen di wan da ngay xool ñoom ni ñuy eh, maanaam ni ñuy mel ci yow nga xam ni kon Sénégal amul lu dul làmb kon ñu ngi ñaan gouvernement bees bi it mu teg ci loxo aussi Lamine ah yéen waa làmb yàlla gën leen a jàppale bu baax a baax amiin incha allah jërëjëf kontaan nañ ci yow bu baax a baax kontaan tamit ci mbokk internet yi doon bàyyi xel xaas TV di leen jox rendez-vous rek beneen yoon incha allah ndax fii suñu kër la Pape dafa daw tey Jamaïcain daw waaw incha allah amul benn problème jërë ngeen jëf